أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi comme nin ko baaxoo def ba tey noo ngi ànd ak yéen ci sunu téere borom bi jalla jalaaluhu wa azza kamaalu ba tey ñu toll ci suura al an'am ci kattanu borom bi subhanahu wa taala tey ñuy jël juróomi aaya aaya 20 21 22 23 24 juróomi aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal mbir yi nekk sunu kanam di ñeenti mbir bi ci njëkk mu ngi xamal ne lam yamna ahlul kitaab min adduxuli fi lislaam illa ithaaru dunya ala al axira xeet woowu ñuy wax ahlul kitaab di ñooñu téere di yahud ak nasaraan borom baa ngi nuy xamal li leen tere dugg ci lislaam du lenn lu dul tànn tànn gi ñu tànn àdduna ci kaw al'axira yahudi ak nasaraan yi bëgg wi ñu bëgg dund àdduna li nu sunu borom di nettali ci suratul baqara yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana kenn ci ñoom dana bëgg a dund junni at ci àdduna pour bañ a dee dara terewu leen a dugg ci lislaam lu dul tànn àdduna ci kaw àllaaxira bëgg noos moo tax gis nga seen mbir yépp mbirum àdduna la lépp booy xool ahlul kitaab seen yëpp àdduna la alaaxira xam nañ ne amuñu fa tus c'est parce que dunduñu diine islaam looloo tax loolu moo leen tere dugg ci lislaam waaye loolu mbokk yi danañu ci jàng ñu nit ne ñi nekk ay jullit ci ñun te bëgg àdduna daf leen a tere dund lislaam à la lettre waaw comme ñee rek kenn ku nekk ci nekk jullit boo tegee àdduna sa kanam yàq nga sa àllaaxira waaw saa yoo jiitalee àdduna ci sa lépp ci sa dund lu mu mën a doon nga jiital ci àddina mooy sa àllaaxira yàqu na ak koo mën a doon loolu tax ab jullit nay bàyyi xel àllaaxira bàyyi xel àllaaxira mooy tax nga xam fooy teg sa tànk bàyyi xel àllaaxira mooy tax nga xam ci li ngay dugg li ngay génn mooy tax sa jaamu yàlla dootoo ci tayal ndax da ngay xam ne àdduna day jeex alaxira na moom du jeex yàlla wax nanu ko bal tusiruuna alxayaata dunya wal axiratu xayrun wa abqa li wóor tey mbir mooy àdduna moo leen yitteel waaye nag àdduna moom na ngeen yëg ne day jeex alaxira nag gëla ngeen di dégg wallaahi du jeex loolu kon leer na tomb bu njëkk bi mooy ahlul kitaab li leen tere dugg ci lislaam mooy jiital àdduna ci kaw alaaxira gënal àdduna ci kaw alaaxira ñaareel bi mooy sababaani fi aadami al jarima al kaadib ala allah al muftari ñaari crime yu rëy rëy rëy rëy ci yàlla ñaari crime yooyu lan la mooy fenal yàlla ak sosal ko waaw fenal yàlla yàlla moo wax te waxut wala moo def te defut wala di ko sosal ndeysaan ki ñu doon jàngal alfalaa ba mu ñuy firil keroog xadis ba jamono boobu ñu nekk woon ula idaadi mu ñuy firil man kadaba alayya falyatabawa maqaduhu min annaar mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku fenal képp ku ma fenal booy dem safara na nga yóbbu foo toog mu ne oɗon gandi ɗum ɗon ko ko firtata ñu ne ko ala mu ne firtata ko ko ɓooyowo toon kala ɗo jaata yimɓe gaña darde warma ɓe mbiyete nawar ɗo juuɗiɗa hade darde warde ma kala kalɗo nelaɗo wiite nelaɗo wiyani nelaɗo waɗi te waɗani penanɗa nelaɗo janngo saɗa naata nder jeygol a ɓooyat toon ɗum tagi nelaɗo wiya nawarɗo jooɗiɗa mune yonente bi sallllahu alih w sallam nene képp kuma fenal am na place ci safara ku fenal yonente bi moom sikk nekku ci am nga place safara waaw am nga fa benn place boo xam ne yor yaa ko moom lu ko waral mooy dangaa fenal yonente bi kon crime la الكاذب على الله المفتري والمكذب الجاهد به وبكتابه وبنبيه فنال يالله سوسالك ودي يالله ودي يوننتم ودي تيري يالله بي مبوكي كريم ويسو الله بور بو تولنا يالله ساك لا بيم لاي بيند كين فيكيوكو amul kenn ku def demande ci ñun ñi toog fii bi ngay judd yàlla def ma nit def ma jullit def ma africain def ma sénégalais def ma tukulóor wala séeréer wala pël wala njaago wala wala wala wala wala wala kan ci ñun fi toog moo def demande ana lettre bi nga bindoon yàlla bi ngay def demande yàlla moo ko neex kon yàlla moomu bind la daf la mbindeef daf la jullit def la def la def la def la yàlla moomu bu la sàkkee wàcce la ci kaw suuf nga weddi ko di ko fenal di ko sosal dëgër bopp ci lim la sant weddi téeréem weddi yonentam si ku ne bu la yàlla jàppee du baax kon kirim bi gën a rëy ci àdduna mooy weddi yàlla ak di ko fenal dëgër bopp ci lim la sant weddi téeréem bi di alquranul karim weddi yonentam bi di sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi kon ab jullit na moytandiku baax a baax sosal yonent bi waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim ñu wax leer na nañ ku ko sosal safara nga jëm ñetteel mooy taqrir adamu falahi zalimin fi hayatayni danañ jàng tey ñàkk a texe bi tooñkat yi di ñàkk a texe ci ñaari dund yi tooñkat du texe aduna du texe àllaaxira tooñkat képp kuy tooñ koo xam ne tooñay sa métier koo dajal tooñ ko na nga yëg ne sa àdduna dana yàqu waaye sa àllaaxira mooy raw parce que doo rëcc yàlla ndax tooñ baaxul alxuraan da ko tere yonent bi tere ko boroom xam-xam yi tere ko yàlla wax na ci alxuraan waman azlamu mimman iftara ala allah gis nga kooku dafa sosal yàlla borom bi wax na bàyyi leen tooñ man maa leen ëpp doole te duma leen tooñ dama aramal tooñ ci sama bopp inni haramtu zulma ala nafsi wa jaaltahu muharramun baynakum fala tazalamu aramal naa tooñ ci sama bopp duma tooñ te maa leen ëpp doole ma def ko mu araam seen diggante kon bu leen tooñante yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na iyaakum wa zulm mooy tëndiku leen tooñ mooy tëndiku leen ko bu leen ko jege yonent bi sax dafa ne ku ñu tooñ boo ñaane yàlla nangu ko waaw fa zulmu taatika uqbaahu bi nadam tooñ résultat bi fu muy mujj ak yow rek mooy lu ngay réccu tanaamu aynaak walmaslumi muntabihun yaddu alayk wa aynullahi lam tanami da ngay doon da ngay tooñ dem te di nelaw te nga ki nga tooñ bàyyi ba guddi gi xaaj mu sangu jàpp lal si jaadaam jàkkaarloog yàlla di sujjóot doo rëcc munoo fexe ba rëcc kon ay ñuy jàng tey dañoo ñëw di saxal ñàkk a texe tooñkat fi xayatayni fi lxayati dunia wa fi laxira doo texe adduna doo texe alaxira kiski nee na azulmu la yaduumu isa dama dammar tooñ du continuer su continuer rek yàq waaw jàpp leen seen dund ñi ngeen gisoon ñuy tooñ yépp fuñ mujj bu doon président bu doon borom doole bu doon bu doon bu doon bu doon ku mu mën a doon ngay tooñ xool ngeen jàng ngeen gis ngeen fu ñu mujjee tooñkat yi yàlla moo ne fu ñu dugg dinaa leen loqati wa sa yaalamu alladina zalamu ayya munqalibun yanqalibun borom bi nee na tooñkat yi fu ñu dugg ëllëg dinaa fa dugg loqarti leen jaaral leen yoon kon tooñ baaxul mbokk jullit yi ñeenteel mooy ashirku laa yugfaru li saahibihi ida lam yatub minhu qabla mawtihi képp kuy bokkaale yàlla du la ko jéggul mukk soo ko tuubulee balaa ngay dee képp kuy bokkaale yàlla di dendale yàlla leneen wala ak keneen di ko bokkaale yàlla ak bu neexee yàlla ak ah di takk ay galaaj di takk ay lam di takk ay xat ay xaaw di yaakaar ku dul yàlla di sujootal bàmmeel di ñaan ku dee ba nga dee dajeeg yàlla tuuboo yàlla du la baal kon li jaadu mooy ab julit mu mooy tëndiku bokkaale sël bàkkaar bu yàlla dul baale inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha tey laa dégg ci whatsapp benn waaye mu ne am na bàkkaar boo xamante ne jàng alxuraan du tax yàlla baal la ko julli du tax yàlla baal la ko woor du tax yàlla baal la ko añ màkka du tax yàlla baal la ko joxe azaka du tax ya maanaam mbooleem li julli di def yàlla di ko baal nee na boo ko defee yàlla du la baal leen dong mooy tax nga yàlla baal la mooy nga am na benn wird bu buy wird boo ko defee benn yoon yàlla baal la wirdu bi nag bëgguma ko wax waaw benn wirdu booy wirdu boo ko waxee benn yoon yàlla baal waaw nee na loo mënta def nee na benn wirdu boobu moo gën junni kaamil waaw te man li ma jaaxal mooy kaamil waxu yàlla la wirdu boobu wirdu doomu waxu doomu aadama la léegi mu gën junni kaamil waxuma sax benn kaamil mais junni kaamil moo tax Sénégal ku yebu di leen ñaanal yàlla ndax li yonent bi waxoon moo leen dal innama axaafu aleykum sahaaba yi ne ah mu ne aimmatil mudillin xam ngeen lu ma ragal ci yéen sahaaba yaa ngi yéen a ngi ni toog xam ngeen lu ma ragal ci yéen saxaaba yi ne ah mu ne ay njiit yuy réer a laate ida waqa alaykum sayf lam yurfa ila yawm alqiyama mu ne bu ngeen tàmbalee reyante dootul jeex loolu yawm alqiyama li yonent bi ragaloon ci ñun moom moo am tey mooy ñu am ay njiit yuy réer a laate waaw ndeysaan benn waa ji mu ne bu leen neexee ngeen takk ay gëld ay gëld de leen ko takk jigéen ñi bu leen neexee ngeen dangal waaye nag tarixa bi bu leen ko bàyyi ndeysaan bu leen neexee ngeen dangal leen neexee ngeen takk ay gëld xam ngeen gëld waaye nag tarixa bi moom bu leen ko bàyyi ah kon daal nit mun na nekk ci yoon bu ko neex di mooy yàlla quoi c'est l'essentiel que bokkal rek fenn ah du loolu yonent bi jàngale woon de sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dañu bokkoon ci mbooloom daf leen tere woon mooy yàlla soññ leen ne leen jaamu leen ba pare mu xamal leen ne ku jaamu yàlla ëllëg mën a lu ma la dara yonent bi de loolu la doon def loolu la doon wone loolu la doon jàngale yonent bi sax woo doomam ne ko yaa fatimatu bintu muhammadin salini min mali ma shit fa inni la ugni anki min allahi shay fatima maa la jurde ba cëg maay sa wiju sama alal lu la neex laajal waaye boo jaamul yàlla ëllëg mënuma laa dugal aljanna mënuma la jëriñ dara kon bokk mbokk yi bokkaale yàlla du ko jéggale su ko nit tuubulee ba mu deewaale ak moom képp ku deewaale si ñun bokkaale yàlla du la baal kon li jaadu mooy chaque jour boo xëyee suba ngoon ngay contrôler sa bopp di ñaan sunu boroom jalla jalaaluhu mu jéggal la li nga ko bokkaale ak li nga yëg ak li nga yëgut ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya alladina ataynahum alkitab
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين
unzur انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون بارك الله فيك با- جزاكم الله خيرا إخوة الإيمان ما زال سياق في التوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتقوية موقفه من أولئك العادلين باتاي سن بروم سبحانه وتعالى ميغي دغرال سونو يونت محمد sallallahu alayhi wa sallam di ko xamal ne alladina ataynahumul kitab ñii nga xam ne jox naa leen téere muy ulamaul yahud wa nasara di borom xam-xam yahudi ak nasaraan yi ñoom ñi nga xam ne man maa leen indil téere ñii ma jox leen tawraat ñii ma jox leen injil li ma la mën a xamal yow yonent bi nga yëg ne ñoom yaarifuunahu xam nañ yonent bi bu baax xam nañ ne yonent la yàlla ko yónni ndawam la waaw yàlla bu ñu waxee ne ahlul kitaab xam nañ yonent bi yaarifuunahu ci suratu baqara sax lu ngeen jàng yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum kenn sax ci ñoom dane man de wax dëgg yàlla yonent bi sax laa gën a xam ak sama doom yi ñu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne leer na ma ne yonent bi yàllaa ko yónni waaye sama doom yi moom wóorut ndax sama jabar rek moo ne maa leen jur waaye est-ce que wóor na Hmm, am na de léeg-léeg nga ngénte doom joo xam ne doo baayam de surtout jamono bu rëbb bii nag bu yàqu bii dégg naa benn jigéen mu ne am naa ñeenti doom mais ki may sëyal dafa jàpp ne mooy seen bàyyi may juru leen léegi nag damaa bëgg a tuub nu may def ndeysaan am na ak ki may ki may sëyal ngénte na sama ñeenti doom waaye juru ci kenn xool loolu nu mu dangereux nu mu grave waaye ahlul kitaab ñoom yaarifuunahu bu baax xam nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax yàlla wax na ko ci seen téere yi alladina ataynaahumul kitab yaarifuuna injil yàlla wax na fa melokaanu yonent yàlla muhammad tawraat kazalik te ay yonent ñëwoon nañ bégale ne moom dana ñëw isaa ci mujj ah kon nag leer na nañ ñi ne ñoom xam nañ kan mooy yonent yàlla muhammad xam nañ ne annahu nabi yonent la yàllaa ko yónni ndawam la leer na ci ñoom peng dara nëbbu ci xam nañ ne wa anna alquran kitaabullah xam nañ ne alquran téere yàlla la awhaahu ilayhi yàlla moo ko dee yonent bi moo ko wax yu ci moom kon xam giñ ko xam dafay saxal xabaar ay melokaanam yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala def na ko ci seeni téere ñu xam ko bu baax a baax xam nañ ko xam goo xam ne maarifa abnaihim xam-xam ni ñu xamee seen doom yi loola leen yàlla delloo ñoom ñi nga xam ne ay arab lañ ñoom ñi nga xam ne alladina qaalu law kunta nabiyan la shahida laka bi dalika ahlul kitab ñoom ñu ne yonent bi bu fekkoon ne ab yonent nga kon ahlul kitab danañ seede ne yow yonent nga maadaama ahlul kitab seede wuñ ne yow yonent nga kon doo yonent yàlla mu ne ahlul kitaab ñoo leen gën a xam yonent bi yéen arab yi ñii dañ leen di nax rek ahlul kitaab ni ñu xamee yonent bi moo raw ni ñu xamee seeni doom loolu mooy wax ji alladina aataynahum alkitab yaarifunahu kama yaarifuuna abnaahum kon bu ngeen fi toogee yéen arab yi ñu leen di nax ahlul kitaab di leen nax naan ñun xamuñu kii gisuñu suñuy téere nangam ak nangam dañ leen di nax rek waaye lu leer nañ mooy ñoom ñoo leen ko gën a xam sunu borom subhanahu wa taala xamal loolu yonent bi pour mu tontu arab yi nga xam ne ñoom ñooy wax ne bu fekkoon ne yonent bi yonent la yàlla subhanahu wa taala dana def yahud yi seede ko ne kii kat ab yonent la waaye yàlla dindi na loolu ba mu set wicc borom bi ne alladina xasiru anfusahum fahum la yuminuun ñi nga xam ne dañoo perte seen bopp àdduna perte seen bopp alaxira du ñu gëmm alladina xasiru anfusahum ñi perte seen bopp fi qadaa illahi wa hukmihi ci atte yàlla ak atte ak xereñam ci azal yàlla atte ci seen jëne ñii du ñu gëm ñooñu mbokk yi kenn mënut a fexe ba ñu dugg aljanna dafa am ci azal ñu yàlla rëdd na ñii safara lañ jëm loolu nag boo ko waxee yenn saa yi nga gis ndeysaan doomu aadama yi jàngul xamuñu jànguñu coobare yàlla mashiatullah dafa am coobarewu moo tax benn waay mu ne isal mar'u lam yuxlaq saidan faqad xaaba man rabbaahu wa xaaba mu'limu fa muusa allazi rabbaahu jibril kaafir fa muusa allazi rabbaahu firawna mursalu ne doomu aadama bu ko yàlla bindee ci azal ne kii safara la jëm day texee di du tekki kenn mënulu ko dërëm ku yàlla ne du tekki buñ ko yóbboon Suisse ci banque yi sax du tekki waaw mu ne xool leen Moussa bi nga xam ne Jibril moo ko yar ni mu texee dee Firawna yar Moussa Firawna boobu nekk yonent ban la xel nangu xel ban la nangu kan moo war a nekk yonent ah ki Moussa war yar ki Firawna yar wala ki Jibril yar kan moo ci waroon nekk yonent ah Jibril moo yar Moussa Samiri mu murtad jëm safara Firawna yar Moussa mu nekk yonent kon mbir yi fan la nekk mooy ci masiatullahi coobarewu yàlla xoolal dëkk bi ni mu bëri ay nit ah yéen yéen a ñëw samedi tafsir fii da nga yaakaar ne yéen a indi seen bopp yàlla la neex tey ji bu ngeen demee ci keppaaru télévision yi keroog nag Sénégal bu ñu fuwal ñëw leen de est-ce que loolu tax ngeen toog sax ah am na fi ñu bëri de maa ngi xool seen kanam yi ñëw ñëw xaw ma nag lu leen di woon waaye ñëwuñ xaw ma nag waaw xëy na dañoo mën ngaan xëy na du marché bi quoi gars yi marché ëppale na julli ji timis ëppale na bañ a julli ji gee ëppale na fomm sa dars match ak match lu mu mën a doon même bu doon coupe du monde la sax Sénégal di finaalu gars yi bu jaamu yàlla jotee nañ dem jaamu ci yàlla hmm?
moo tax ñu door leen benn benn imam ndeysaan dafa jiite timis bi Sénégal di football jàkkaam da daan fees del benn rak benn benn sàppe la am affaire bi métti ko ca suba sa mu def bayaan bi ñu jullee jàkk ji fees del mu def bayaan mu ne waaw da moo tax keroog Sénégal di football ñëw leen julli si xanaa xamu leen ne lépp lu la tere jaamu ji yàlla loolu xërëm la ci yow loolu ngay jaamu benn paa génn naan lay ah yàlla xol lay fay wax na dëgg yàlla xol lay fay seen xol yi biñ ko bañee jox yàlla moo tax yàlla fay leen maa lépp loo xam ne moo la téye ba jaamuwoo yàlla loolu xërëm la loolu mooy sa yàlla lu mun a am bu ñu jëndee yàlla suñ diine ji bu ñu jëndee àdduna suñ diine bi wax naa sànq ahlul kitaab lu tax dugguñ ci lislaam àdduna ñu nit bu julli jotee au lieu ñu dem julli ji ñu topp ay marche topp ay làmb topp topp topp léegi nag marche ba jeex na toog ngeen ngeen ñëw das yàlla danaan ñii ñoo mën a sóob Sénégal bu toogaloon doy duñ ñëw kon ñu ngi nii suba ñu ngi pre ah attention de gars yi mënuñu nax yàlla waaw kon ñi nga xam ne dañoo perte seen bopp ci dogalu yàlla yàllaa dogal ak atteem ca azal ne ñii laa yuminuuna duñu gëm wa in alimu zalika fi kutubihim wa fahimu wa qtanau bihi fa hada sirru adami imanihim bu ñu comprendre oon dëgg dëgg dëgg seen téere yi ñu ko ñu xam li ci nekk mu convaincre leen danañ xam ne lii mooy secret seen ñàkk gëm nit lenn saa yi nga am nit nga am mbokk doom jabar baay ndey nga topp di leeral di wax lu ne nga def ko ah dafa la attention de est-ce que bokkul ci yàlla ne ñii duñu gëm ku yàlla ne ci azal du gëm du gëm kenn mënul fexe ba mu gëm falan yakunu idan adamu imanihim hujja wa dalil ala nabi muhammad sa sa ñàkk gi ñu ñàkk gëm léegi nag yàlla ndax yàllaa defoon ci azal loolu nag léegi ñu bukk ko def aw lay ne yonent bi du yonent ah kay yonent la yàllaa ko yónni wala ñu ne bi annahu gayru nabi du seen yonent ñoom yàlla yónniwu ko ci ñoom xëy na yonent la waaye yonent arab yi la yenn saa yi sax nga dégg sénégalais yi koy wax ne dëgg la nangu nañ yonent yàlla muhammad yonent la waaye nag ci arab yi la ko yàlla yónni arab yi kon fan la ñuy dugal aaya wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas fu ñuy dugal lu aaya boobu illa kaafa linnaas wala yéen waa sénégal bokk leen ci naas yi ay jinne ngeen ah yàlla wa ma arsalnaaka même bu doon ay jinne leen sax yàlla yónni na kon muhammad ci ñun ah illa kaafa linnas basiran wa naziran wa daa'iyan ila allah bi izni wa sirajam nira kon mënuñu cee génn yàlla yónni yonent yàlla muhammad ci ñun mu ngoog dañu xam ne loolu mooy dëgg yu góorgóorlu borom bi ne waman azlamu ana kan moo dàqa tooñ nga tontu ne kenn dàquta tooñ mim man ci waaja nga xam ne iftara ala allah dafa sosal yàlla kadiban ay kàcc waaw mu sosal yàlla istifham li nafi wa taqri ay la ahad azlamu zulman mimman iftara ala allahi kadiban kenn dàquta tooñ kuy sosal yàlla kuy fenal yàlla kenn dàqulaa tooñ nga romb ñëpp ñëw ba ci yàlla di ko fenal waaw ndeysaan naan yàlla dafa jóge kaw asamaan wàcc ma topp tànk yi muy dox ma ñëw fekk ko mu takk ndigam di bale inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu yàlla na ma yàlla jégal sax ci wax ji ma ko waxaat topp yàlla yàlla di dox mu ne ma topp tànk yi ma ñëw fekk ko ci wanag bi muy bale yal na nu yàlla jubal waa ji nga xam ne dafa fenal yàlla fen ci aaya yàlla yi waaw fen fenal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kéw kenn dax ko tooñ wahum al mushrikuun ñii ñooy bokkaalekat yi nag bi zaamihim an al asnaam tushfau lahum inda allah léeg-léeg nga dégg bokkaalekat yi naan ñun diw ñun sunu xërëm yi ñun sunu kii ñun sunu lee fen googu ñuy fenal yàlla ci mbir yooyu ñuy wax day def dara ëllëg te xam nañ ne loolu du def tus ëllëg loolu la leen yàlla subhanahu wa taala wax ne kenn gënu leen a mën a fen ndax lan ñu ngi sosal yàlla jàpp ne ëllëg am na benn waay buy ñëw rek nga ne waa kër diw ñu ne ñu ngi nii mu ne taxawee leen nee benn waay dégg naa da doon dox ci tali bi rek deux chevaux xam ngeen deux chevaux mbëkk ko mu xëm ñeenu ko yóbbu ko principal su booba ngoon mu ximmiliku mu xool ni fi mu tëdd mu gis hôpital bi weex mu xool gis docteur yi sol ay blouse weex mu xool gis malade yi ñu sàng leen darab yu weex comme ximmiliku na mu daw ñëw ci benn docteur ne ko ana waa kër diw waa kër diw moom ban boor lañ féete dafa tiit dafa ne yombal xiyaam la nekk xam nga ne kooku yow mu jaamu yàlla mu xëcc benn docteur ne ko ana waa kër diw ban boor lañ féete fi kooku ne ko lu xew mu ne ko ah fi du yombal xiyaam muy laajte waa kër diw kooku ne ko fii de principal la allahu akbar kon ku yeba jaamu yàlla bu fekkee ki diw diw nga kër diw nga yaakaar mu ne ko fii principal la gars yi nañ leen jaamu yàlla ku jaamu yàlla perte nga ku yaakaar ne ëllëg da ngay dekki gis diw kon kay diw na la tere dugg bàmmeel na tax ñi nekk malaaka yi nekk bàmmeel buñ la laaj allahu akbar borom bi nee na bokkaalekat yi de dañoo wax ne seeni xërëm dana leen ràmm ëllëg yowmal xiyaama soo moo tax walisa abaduha moo tax ñu koy jaamu su ngeen gisee ñun ñuy su raamal bàmmeel yii di tubb suuf si di takk xeer ya xaaw yeeg petaaw yi ëllëg yowmal xiyaama dana ñu sauvé aw kazabu bi ayaatihi wala ñu weddi aaya yàlla yi alquran bi ñu weddi ko waxum ahlul kitaab mooy waa ahlul kitaab ak ñi mel ni ñoom wa axbara anna aljami fi mawqifi almuaadi liltawxid walislaam yàlla xamal ñu ne ñii ak ñu mel ni ñoom dañoo taxaw taxawaayu weddi pas-pasu tawxid ak islaam waaw ndax tooñ borom bi yëgal ñu ne wa anna dalimuna la yuflixuun ñii tooñ duñu texe moo tax mu ne innahu li wóor tey mbir laa yuflihu du texe azzalimuna tooñkat yi yàgg nañoo wax bu njàngee alxuraan bàyyi jeex dañuy taxaw seetlu xool aaya bi yàlla nee na innahu li wóor tey mbir laa yuflihu du texe azzalimun tooñkat kon ci ñun fii tey ku nekk tooñkat nga dégg yàlla ne doo texe adduna doo texe àllaaxira lu la war nga bàyyi tooñ booy tooñ say jabar nga bàyyi leen tooñ booy tooñ say doom nga bàyyi leen tooñ booy tooñ say dëkkandoo nga bàyyi leen tooñ booy tooñ say wayjur nga bàyyi leen tooñ sooy tooñ nit ñi nga bàyyi leen tooñ ku nekk nag ak ki ngay tooñ ku nekk ak ki ngay tooñ lenn saa yi nga am doom di ko noggatu wala nga am jabar di ko noggatu xam nga dafa dafa dafa faible wala nga am benn dëkkandoo wala nga am benn liggéeykat wala nga am benn nga jàpp ko di ko napp xam nga ne kii sësul ci kenn ah yow rek la fi gis nga koy noggatu loolu mbokk yi ku koy def ci ñun bu yeboo nga nga bàyyi nga teg ko ci suuf xam nga mun na mun nga fee nekk naan waaw c'est que di jéem a layi waaye yàlla xam na sa digganteeg yàlla bu leeree ne yow tooñoo rek jeex na waaye bu la leeree ne yàlla xam na ne lii ngay def yaa ngi tooñ bu yeboo nga dëpp ndax àq yi kat ëllëg yomal xiyaam yàlla koy nangu koo mun a tooñ nag koo mun a tooñ àq yi ëllëg di nga ko delloo yàlla du la bàyyi mukk mukk mukk mukk lu dul àq yi mu nangu ko ci yow delloo ko ki nga doon tooñ ndax yomal xiyaam yàlla danaan ana tooñkat bi mu ne maa ngi mu ne ñëwal nga ñëw ana ki ñu doon tooñ mu ne maa ngi mun a ñëwal ci ngeen di gis même rabu àll yi amuloon amoon béjjén di mbëkk yu amul béjjén yi yàlla day saxalaat béjjén yi ci amuloon béjjén ñu fayu ba rabu àll yëpp jeex yàlla ne leen kuunu turaaba nekk leen suuf foofu la doomu aadama di xool gis rabu àll yi nekk suuf mu ne yaa layta nii kuntu turaaba ak a neexoon tey ma nekk suuf yàlla bañ maa dekkil di ma fay comme rabu àll yi waaw mooy maandute yàlla jalla jalaaluhu rab yi sax dañuy fayu ak tooñ yi yàlla dina ko delloo kon nag rawatina ñun doomu aadama kon nanu fexe ñu bàyyi tooñ ndax dégg ngeen aaya bi fi mu jeexee yàlla nee na wala yuflixu zalimun innahu la yuflixu zalimun li wër tey mbir ñu xam ko mu leer mooy tooñkat yi duñu texe borom bi nee na wa yawma bis fàttaliku leen bis boo xam ne naxsuruhum dinaa leen dajale jamian ñëpp allahu akbar su ma leen dajalee ñëpp lu may wax summa naqul lu ñu wax lillazina ashraku gaa yi doon bokkaale ayna surakaaukum ana ñi ngeen ma doon dendale allahu akbar allazina ñi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tazumuun ngeen doon wax ñi mën nañu dara tad'uuna annahum suraka ngeen may bokkaaleeg ñoom ngeen ne ëllëg yowmal qiyaam yasfa'uuna lakum ñoom ñooy ramm ñoom ñooy nii bu kii tëllee fee kii sol garaam bu bee kee ñëw yenu mbax ne mais kee ñëw kee ñëw di ngeen dugg àjjana aja Sénégal lu ne ngay dégg bu yowmal xiyaamee bu diw nee fii tëll nga gis gaa yi yuux kenn yowmal xiyaamee day ñëw fëgg ne ubbi leen waa kër diw ñëw nañ ñun ñu dugg kenn yowmal qiyaam subhaana lu ne ngay dégg lu ne waaw tukulóor yi sax dañuy wax saa waɗi jebe sappoy goo ɗum ɗon a naataani janngo aljanna yaa poñ allah mbiyaamo addu jebam tukulóor ñoom lan la ñoom am na benn wirde ñu ne boo ko wirdee fukk ak benn duggoo aljanna ñu ne da nga poñe yàlla ëllëg ne ko fay ma tegal fi sama wirde bi ma wirdoo ma jow ma wirde ba pare waaj allahu akbar ndeysaan yunus nee na minen allah poñeteeɗo min ngalaa e mum haaju yàlla bu ñuy poñe ñun soxla wuñu yàlla boobu kan moo ñeme poñe yàlla kan moo am pouvoir kan moo am pouvoir te dégg waa ji ne dañuy waññaar loxo yàlla tëtëtëtëtët kalimatu kufru yoo xam ne yow da ngay tiit ñii dafa ne ban monde lañ jóge bay bay am fit gii mais dara parce que ñàkk tawhid rek ku amul tawhid moom lu ne nga waxam ku amul tawxiid ku xamul yàlla doo ko mun a kennal kon loo neex ngay def loo neex ngay wax dégg ngeen ni woote gi yàlla woote lii mu wax leer na nañ ëllëg yowmal qiyaam mu ne wa yowma naxsuruhum bis bu ma leen dajalee ban bis la bisu yowmal qiyaam la bis boobu bu ñuy daje ku mën woo doo waxal man bokkuma ci daje bi borom bi yamul rek ci hum bi mu ne jamian ñoom ñëpp nag koo xalaat rek kon fii mu ngi fi dana bokk ci daja bi am na ku ngeen di xalaat dama leen di laaj ndax am na ñu ngeen di xalaat waaw kon xalaatu leen kenn waaw baax na ñooñu ngeen di xalaat danañ taxaw ci bis boobu ñoom ñëpp jamian borom bi ne summa topp naqulu nu wax lilladina ashraku ñi nga xam ne ñoo ma doon bokkaale waaw léegi nag dee ngeen ana ñooñu ayna shurakaaukum alladina kuntum tazumun ana ñi ngeen ma doon booleel ñi ngeen ma doon dendale naan ñooñu mën nañ naan ñooñu ñooy indi taw ñooy niinal ceeb ñooy nooyal ñooy ñooy ñooy yokku fan ak ñooy yaatal wërsëg bi ana ñooñu tey aca woo leen leen ñu ñëw allahu akbar nga xam ne doomu aadama moo ñàkk jom moo torox day weddi kat summa topp lam takun fitnatuhum illa an qaalu lillahi rabbina ma kunna mushrikin allahu eh yàlla yàlla yow tamit nga ne yéen dañ doon wax rek toog ñu bokkaale wuñ laa ceet ñun kay ñàkk jom taxaw fii ci àdduna takk say rajo naan yàlla ak bu neexee diw bu neexee sàmba bu neexee demba tey nga dee ñu dajale yàlla ne wool ñooñu nga toog fi daan wóor na yàlla man yàlla yow musuma laa bokkaale waaye ku la ñeme bokkaale yow ñàkk jom rek ñu ngi nii yàllaa ko wax de waaw yàlla nee na ëllëg gars yi dañuy nekk ci problème summa lam takun fitnatuhum seen musiba bi ñu nekkoon démb yëpp këpp seen kaw lu ñuy taxaw di wax illa lu dul an qaalu ñu naan wallahi di giñ ci yàlla rabbina wallahi rabbina géñ nañ ci yow sunu borom maa kunna mushrikin ñu mus ñu la bokkaale ah ana béjjén yi nga doon takk ana xaaw yi ana petaaw yi buñ ne yàlla nga ni yàlla ak buñ ne yàlla nga ni yàlla kese dafa ri tax acca tey nag nga taxaw fi yàlla na wool ñi nga ma den dendal woo leen boo doon tooñ ab ponkal sax ba mu koj la ci ruq nga ni tëll gis ko mu taxaw ne këj sa kanam munatoo daw mu ne la booy nga ne wallahi gannaaw dama doon foo rek waxuma la ak yàlla nag allahu akbar ngay wax waa ji daal lay poñe ne leen nii sam bumbu baat yëkkati la ba ci kaw ba sa tànk laa la suuf mu ne yow loo doon wax yow ba jéggal ma rek maa ngi jéggalu waaye maa ngi jéggalu jéggalu waaye jéggalu jéggalu ah loolu la gaa yi def tey taxaw ci kanam yàlla yàlla mu ne ana ñi ngeen ma doon booleel ana ñi ngeen ngemboon ne mën nañ fi dara yow mal xiyaam àllaaxira tey c'est que suñu jàngoon alxuraan du ñu am problème xool yàlla lu mu wax ci suuratu naba ah ci suuratu naba yàlla la la wax suuratu naba am mayta lan la yàlla wax yow mal xiyaam laa yatakallamuun illa man azina lahu rrahman yàlla nee na kenn du wax lu dul ko yàlla ne eh eh liw mu naa mu ne ko kaay wax yow te suy wax mu ne waqaala sawaaban wax yu ne cocc lay wax du ñëw di làkk ay lu ko neex de waqaala sawaaban est ce que aaya boobu kese la aban aaya la yàlla waxaan ne yow ma xam kenn du wax ah man za allazi yashfau indahu illa bi idni kenn du ñëw naan da ngay ramulul ku daala ne ana diw mu ne maa mu ne kaay ramu waaw kaay xool fi gars yi nga ramu kon yàlla mooy joxe ndigal mais xoola ñun fii waxuñu yàlla mooy joxe ndigal dañu ne ñu- ñun ñooy def ñooy def waaw diw day def diw day def doomam day def am na ñoo xam ne sax duñu wax diw day def dañ naan man ku ma gis rek dugg nga aljanna waaw ma gis rek am na ñoo xam boo leen gisee ajjuma ñu ne dugg nga ajjana ajjuma ndeysaan moo tax benn waaye mu ne ñii ñoo ñoo ñe- ñoo repp abu abu lahab abu jahlin gis yonent bi duggul aljanna bokk ak yonent bi duggul aljanna ibrahima gis baayam dugg baayam duggul aljanna nu jabar ak doomam gis ko dugguñu aljanna qaaruna gis muusa duggul aljanna kon léegi ñii ñoo gën a foor yonent yi yëpp di bokkaale yàlla di dendale yàlla te ëllëg yowmal xiyaam fi ngay mujj mooy weddi yàlla mu ngi nii moo ko wax bu fekkee ne man xëy na arab bi laa yor fii yéen ñi yor français yi liir leen lan la bokk wallahi kon képp koo xam ne yaa ngi bokkaale yàlla yaa ngi koy dendaleeg leneen fi ngay mujj rek mooy fii fi yàlla ne ayna shurakaa'ukum ana seen mbër ya nag ña ngeen ngamboon nag jox leen ñu lekk ba suur entraîné ana ñu alladina kuntum tazumuun ñi ngeen doon wax annahum yasfauna lakum danañ leen ramm haazal yowmu tey bis bii summa lam takun natijatu haadihi lfitna ay al ixtibaar natt googu yàlla di leen natt nag tey ba taxawloo leen ci terrain bi ñoom kenn cundum kenn solul tubéy te looloo ci garaaw de yow nag yam amul sol tubéy de góor ak jigéen nag ci benn place xanaa boo yaakaaroon nit nga gëstu gis ko sawaay mu ne duum waaye li nga xam ne mënul dara xoolal li doy waar mooy yàlla daf ñu wax sax ñi ñu gën a jege ñoo ñuy daw ñi ñu gën a jege sa ndey day daw sa baay ah wala yàlla wax loolu yawma yafirul mar'u yawma yafirul mar'u min axi bis bu nit di daw mbokkam àdduna ndax nit dina daw mbokkam soo demoon léegi léegi Dakar ngay jël oto nga jékki-jékki gis sa papa taxaw ci rang bi ci buuxante oto yi nga xool ko mu xool ko muy sa papa oto ñëw nga daw en place looy def nga xool gis paa bi ci biti nooy def da ngay da ngay da ngay dem dama leen di laaj kan ci yéen fii mooy dem nooy def kon da ngay wàcc ne papa kaay toog fi man dinaa ñefe pour ñëw dama nga ñibbi mu ne est-ce que way lu tax demoo lu tax bi nga juddoo waxoo papa au revoir maa ngi lay xaar kër ga di dañ la xaar reer dégg nga lu tax waxoo loolu waaye léegi nag xam nga foofu àdduna kese la bi nga gisee sa papa dawoo da ngaa xaar wala sa yaay da ngaa fexe ba nga dugal ko yow bi nga amulee place sax place bi nekk benn da nga kaa jox moom mu toog yow nga dem même waxuma sax ngeen ñàkk dugg ngeen ci oto sax benn place la yaag sa papa dugg ngeen ci kaar bi benn place moo des te yéen ñaar ngeen kan mooy toog ah lu tax lu tax wax ko yow paa bi yow yaa ma magaam waaye ci xool yaa taxawal fii baa ma toog man maay xale tax wax ko loolu parce que mbirum àdduna la amma àllaaxira nag foofu mbirum àjjana la xoola sunu borom li mu wax mu ne yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi izin bi banii kuy jël ay doomam yàlla xoolal ñii ñëpp conteneur lañ maa leen jur dugal leen safara te nga bàyyi ma ay doomam yi mu jur ndeysaan barki démb nee nañ benn waaye këram day lakk mënuñu génn mook doom yi mu tëdd ci kaw doom yi mu tëdd seen kaw moom mu dee doom yi génn safara yi ñëw génne doom yi doom yi dund moom mu dee tëdd ci kaw doom yi gis nga parce que àdduna amma àllaaxira yàlla doomu aadama ne yàlla jëlal samay doom dugal safara ma dugg aljanna min azabi yawmi izin bi banihi yamu ci de wa saahibati yàlla ne ko ñooñu dañoo tuuti mun a jokk ci sama jawari jëlal dafa tuuti yàlla mu ne wa fasilati illati tuwi jëlal sama famille yëpp nga dugal ci jëlal dafa tuuti mu ne wa man fit yàlla jëlal waa suuf yëpp nag nga lakk leen nga bàyyi ma nag kon ñun ñi sax waa ji dugal nañu ngir bëgg a dugg aljanna moo tax léegi nag ki bëgg loolu dana wax ab ab ab kii ab nangam ab ab nangam yooyu ay caaxaan la kaa leen jaamu yàlla bàyyi fobi loolu mooy dëgg wax jaamu yàlla yi nañ dem jaamu ji yàlla mais ay intérêt ay nangam ak i nangam tax ñu jël doomu jaamu jaami yàlla yi di leen alak di leen toroxal daf leen lu kenn xamut loolu mbokk yi du tax ñu dem waaw keroog ba leen yàlla posé question ne leen nekk ana ñi ngeen ma doon boole lan mooy résultat bi tey lu dul yàlla natt bu mu leen natt lu dul ñu wax wallahi rabbina ma kunna mushrikin ñun de yàlla ñoo ngi géñ ne musuñu laa bokkaale waaw musuñu la bokkaale gis ngeen yaa ngeen istabara allazina tubiu min allazina tabau waraul azab yàlla nee na bis bi nga xam ne ñi doon topp ak ñiñ doon topp dañuy xeex ñi doon toppaate ak ñiñ doon topp dañuy taxaw waaw wa qaala alladina tabau ñi doon toppaate ñu ne law anna lana karra suñu amoon benn seconde rek gis nga yéen yéen du mu leen wax dara seen sikkim yeeg seen kaala yi yéen ñu nekk àdduna ngeen ñu ne da ngeen ñuy yóbbu àjjana ñuy liggéey di leen jox di leen bayal di leen defal lu nekk di daw guddeeg bëccëg tey ñu ñëw fii ngeen ne xamu leen ñu yàlla doo ñu delloo ñu nag waa ji àdduna benn seconde rek karra mooy benn seconde wala lu ko gën a tuuti kon buñ demee ba ne cëpp danañ leen joxor bi jam leen baaraam ne leen hey tus mënu leen ko dekki fa natabarra'u minhum kama tabarra'u minna ni ñu dañe si ñun tey noonu la ñuy dañe si ñoom ba set waaye boobu c'est trop tard parce que àllaaxira la soo déggee rëccu du wees du àllaaxira àllaaxira moom rëccu dafay wees kon mbokk yi sunu borom moom moo nuy leeralal aaya yi pour ñu xelu xoola yàlla yemul ci loolu de mu ne unzur xoolal nag jommil waaye waarul waay kayfa naka kazzabu ala anfusihim ni ñu weddee seen bopp fen loo seen bopp ne bokkaale wuñ ma te dañ ma doon bokkaale ñoom ñoo taxaw fi léegi di waat naan wallahi rabbina ma kunna mushrikin ñun musuñu laa bokkaale yàlla mu ne xoolal rek ñàkk jomm unzur xoolal te waaru kayfa kazzabu ala ala anfusihim naka la ñu fenloo seen bopp démb ñu ngi doon fen di bokkaale fu nekk ñu dugg fa di organiser ay journée bokkaale ay guddi bokkaale ay bëccëgu bokkaale tey ñu taxaw fii di fen naan yow yàlla musuñu laa dendale kenn xoolal ni ñuy fenloo seen bopp wa dalla anhum ma kaanu yaftarun xam nga lu tax wa dalla dafa sànku anhum ci ñoom maakaanu la ñu nekkoon yaftaru na di ko fen tey fen yi moo sori mën naa nangam ak nangam tërërëra di wax yu kenn xamut tey fen yooyu ñu doon fen moom moom lañ mënta gis moo tax ñuy réccu alxuraanu yàlla jaa ngi ni mbokk yi leer nañ nañ nañ mu nekk ay texte yoo xam ne jarul sax commentaire boo ko jàngi arab bi ci kaw mu leer nañ boo demee jël livre français bi yow mi jàng français mu leer nañ mu ngi nii lii la ñu yàlla wax kon képp ku fi bokkaale ngay dendale yàlla ak leneen wala nga ñàkk xam borom bi wala ngay fenal yonent bi wala fi ngay mujje mooy fii ëllëg yàlla dina la taxawloo nga màtt sa baaraam yi waaw gërëj màtt say loxo kon boog ah kon nag nanu xelu nanu góorgóorlu sunu diine balaa yowmal xiyaam taxaw sunu kanam aaya yaa ngoog ñoo ngi jéggalu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu su fekkee am na luñ ci war a leeral